asalaamaaleykum wa rahmatullah mboole mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm eh, di ko ñaanal suñ bopp eh, mu mel ni am na mbokk mu doon laaj ci lu aju ci jigéen a wérul ndax mën naa jëfandikoo jinjeer ak bisaab ñaari laaj la boole Eh, waaw jigéenu wérul moom li ñuy tuddee cas spécial la moom moom ay mbirum dafay spécial waaw wala boog ay mbirum dañoo spéciaux ndax jigéenu wérul jamono jëmay jëm ca tollee yu bëri dafay changer ci yaram am na jàngoro ju ñuy tuddee la maladie de Pica dinañ ko tuddee tamit le syndrome de pica kenn ku ne nag mën na laa dal xam nga nu muy dikkee nit ki mooy nga xëy di lekk ay mbir yi nga xam ne lekkwul mbir yu lekkwul nga koy lekk yi nga xam ne kenn waru koo jëfandikoo ci wàllu lekk yow nga dem di di ko lekk dina dal xale dina dal mag dina dal góor dina jigéen waaye dafa gën a yàpp jigéenu wérul waaw jigéen wérul la gën a yàpp dañ ci gis kuy lekk geew dañ gis kuy kuy mar nga seen poussière di ko mar waaw dañ ci gis eh, ku yéeyi xeer waaw dañ ci gis ci gis kuy kuy lekk dóom dóom dóomu tàgg xam nga loolu yéeme na jàngoro la nag ndax ñu bari def leen di dal wala bokk am na ñu muy dal waaye dafa ëppee ci jigéen wérul kon xam nga moom kaam dafa dafa bokkal ak yeneen kaa yi ba tax lu nekk rek da ci dañ ciy tey balaa ñu koy digal mais jinjeer moom bokkul ci yiñ koy tere jigéen wérul sax dañ kaa digal jinjeer lu tax eh, ndax xel muy tee bi koy sonnal ak wocc mooy loolu ñu tuddee jafte bu ci tollee mu sonn lool xel muy tee wëccu wu tar coono yaram wuy metti yooyu nag dafa bokk ci ñu ciy dig ciy digle mooy jinjeer kon jigéen wérul kenn terew ko jinjeer waaye liñ ci gën a digle nag mooy jamono jëmoon ne lor bay juróom-benneelu weer ci intervalle boobu li gënoon mooy borom bi juróom-benn weer mu noppalu ci jinjeer bi waaye su su yeggagul juróom benn weer kenn terewu ko mu def ko infusion di naan nga jinjeer bu tàng nga xam ne da ngaa tucc tuccal ba mu nooy def ci sa cafetière def ci ndox bàyyi ko mu tàng ak ndox mi ba yàbbi ci biir su nuggee nga xelli suukaree ko lem naan wala nga defar jus jinjeer naan waaw wala jamono ji la wacc wi lay dëgg-dëgg nga wut jinjeer bu fere nga xam ne danga nga koy dagg da nga dagg tuuti rek sàq mi jamono yi la wëcc bi wëcc bi sonnalee rek mu calmé ko ah, ba wëcc bi bàyyi la ak xel muy teemi kon nag kenn terewu ko waaw ah. bu dee wàllu bisaab moom nag wax ji xaw na ci bëri am na sax ñuy jàpp ne ah bisaab di wóorul ndax dafay provoquer avortement am na ñu koy wax waaw ah, man de dégg naa ñu ba def ci waxtaan di ko wax tere ko carrément Euh, waaye daal liñ ci xam ñun mooy su dee doos bu yem rek ñaari kaasu bisab par bés yàqulul jigéen jigéen wérul dara waaw ñaari kaas bañ cee jël doos bu jéggi dayoo ki muy sonal mooy ki amee tension bu wàcc ba noppi kooku bisaab mën na koo sonal ndax xam ngeen bisaab dafay wàccee tension kon nag bu wàccee ba noppi tension day faral di wàcc da nga koy moytu waaw kooku daal gis nañ ne eh, mën na koo sonal ak jigéen ñi nga xam ne dafa seetlu ca biir jamono ju mu wone lor moom yëg na ne yenn saa yi dafay sañe waaw dafay sañe waaw bu ko defee ñu ne ko jamono yooyu gënul nga koy nga di ko jëfandikoo ndax euh, moom bisaab bi mën na yokk saignement boobu te saignement bu jéggi dawee nag baaxul waaw gis nga jigéen dina dina wann lor di gis deret eh, tubaab yi médecine amal na ko tur da koy tuddee règle anniversaire waaye jotewul ak règle dara waaw am na ñi nga xam ne du lu complexe yi ñoom mën nga xëy rek mu mu bàyyi am na nga xam nag mun na persister ba sonnal leen boo ko defee kii jigéen ju toll ci jamono jooju nag moom bisaab bisaab lañ ko ko ndax bisaab nag li ci nekk mooy mën na sax dimbali jigéen ju tollu ci mat mat bu métti lool jox ko bisaab mu naan ndax su su naanee mu waral contraction yi ba mu mën a ko ci jàmm moo tax dinañ ko digle duñ ko tere jigéen wérul waaye li ci ëpp moom tamit soo pay soo soo demee borom bu juróom benneel weer weer rek ci sa jamono ji nga wan ne lor dañ la naan rek nga arrêté ko nga bàyyi naanu bisaab bi ba jëmmi jamono waaye kenn du ci dog rek ne moom jigéen wérul du ko naan ndax yàgg nañoo gis jigéen wérul bu naan bisaab sax ba keroog muy yàlla di ko may muy yeewu te amu ci benn gàllankoor même ki ëppal juróom benn weer di ko jël mën na ci bañam bañam benn gàllankoor donc li ñuy wax rek mooy par prudence rek lañ la naan ah comme que toll nga ci yenn niveau yi rek mën ngaa noppalu ba ci kanam ndax lañ ci seetlu rek mooy am na ñi nga xam ne mën na leen yombal eh, ñu ñu am doom jamono yuñ ca tollee ñuy ragal nag ku xaw a jege jege weer yooyu nag nga jël bisaab mën na waral mbir yi teel a ñëw fekk àpp ba jotul loolu nag luñ ci ragal la rek waaye ci. benn ba juróom benn weer moom surtout eh, di jëfandikoo bisaab duñ ko tere eh, su dee rek mën nga cee yem ci ñaari kaas ci ci ci bés bi eh, kon nag loolu lañ mën a indi ci tontu ci sa laaj boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah